noo ngi nuyu bokk taal bi yëpp leen jot ndigal loo xam ne nag ndigalal sëñ Tuubaa la Cheikh Mountakha Mbacké moo jox ndigal lii sëñ Cheikh Jëm Fall indi waru Cheikh Fall gépp indi waru Cheikh nag mooy murid yëpp ak Cheikh Fall jaboote ñëpp ndigal nag mooy stade bi yoon ci yoonu Mbàkke boo génnee Mbàkke jëm Njaareem sa loxo ndijoor boo jógee Njaareem bi dugg Mbàkke sa loxo càmmoñ da ko jox Sëñ Tuubaa nag Sëñ Tuubaa jox ko Sëriñ Faal ni ko def daara ñu ne dañ ko këru daara dafay jàkka loolu nag sëñ baa ngi ci woo ko yaakaar Sëñ Tuubaa mbaa yaakaar Sëriñ dina mbir bi tey ji suba lañ dina mbir bi ñu ko tàmbalee daj yi alxames yi nga xam ne mooy ñaar ko juróom-ñaar ci weer bi lañ ko bëgg a tàmbali sëñ baa ngi woo bépp jullit nag mbaa ab murid mbaa te ne ci réew mi ne ci bitim réew sëñ la ci bu ci xet kenn dara bu ci sëñ du mayee dara day jaay rek loo jënd yaa ko moom sëñ bi Mountakha Mbacké nee na njëriñ lépp faal nee na njëriñ lépp faal nee na yëpp faal nga leen yëpp faal kon nag faal nag moo jëlal rek kon nag ku bëgg ku bëgg am ñëwal jël waaye li ngay ji li ngay jël ko yi ko jënd nag bul xeeb sa dërëm bul xeeb sa café bul xeeb sa tàngal bul xeeb sa doomu gerte yaa xam noo ko mayee rek defee ko ne waaye ak neen nag des jëlee dara mu daal ku jëf daal yaa moom waaye duñu mayee kon na ñëw leen jënd ku ñëw rek boo fi accès ñaanal la nga bëgg a dem nga xam ne yi yàlla na suñu Tuubaa faj ay jullit yëpp dama jàmm ci àdduna yëpp jullit yi ak murit yëpp dama jàmm ci réew mi ay xéwal yaatu yi muy réew Sëñ nañ ko tey nag duñu ko bàyyi agul nag fu murit nekk rek ndigal laa ngoog kon jërë ngeen jëf yéen waa rajo bii noo ñaan sama borom yokk leen te barke leen rajo bi ba fu ngeen bëgg mu àgg fa sama borom àggale ko fa fii de stade la stade nag ku ne xam ne ni mooy fu ñu daan futbale wala basket ñu ko amoon ko fii ci yoonu Mbàkke bu ne daan ko fi dajee di ko fo di ko fi defee yàlla dogal nag ci jamono yële ci ginnaaw bi ne waajee Masaalikul Jinaan sëriñ Muntaxa Mbàkke mii fi nekk di sëñ Tuubaa demoon ca ñu wax ne ba mu weññi ko keroog fii la jaar ñu fab lii di stade bi jébbaloon ko ko def ko addi sëriñ Tuubaa sëñ Muntaxa ni kon dinaa ko def ci turu sëriñ Tuubaa def ko ci turu sëriñ Tuubaa waaye nag lan fa daan def dama faa bëgg leneen lu gën loola lan moo gën loola dafay bëgg a tabax alxuraan def fi jàkka ñu difi fi alquran difi di fi julli waxtu yu juróom loola mu xalaatoon ni man nako ko seigne touba lu massa am Cheikh Rafa ko def wala bok na ci ñeko def ba tax Cheikh mohammed muntaha fab liggey bi jox ko ki fi togal Cheikh Ibra Fall di Serigne Cheikh jëm ni dafa bëgg mu défar ko motax tax bi ñu xëy see di alti mir bi fi nekkon man bi may ñëw daanaka fekkuñu ci dara gaay xamna dañ ci fanaan bu ma ko bam set wicc fi ñu toll ñi ngi gis nga leen mbooloo maa ngi nii wër di dindi fondation bi dinañ ko gas ba jot ko dijjit ko moom seet wicc bala ko moom seet wicc nag ñu doog a fàkkaat nag miiraat ko beneen miir boo xam ni dina méngoo ko jamono ndax noonu la ko sëñ Tuubaa bëgg kuy defal ki gën da nga koy defal la gën loo tax sëñ Seex Jëmb bëgg fee def loo xam ni ku fi jaar dina xam ni fii Seex Rafaa la fi jaar nde fasi nañ fee def loo xam daal dina wuuteeg li fi nekkoon lool ci incha allah dina wuutee ndax dinañ ko miir miir miir méngoo jamono bâtiment yi sëñ Muntaxa bëgg dinañ ko fi defal jàkk ji mu moo fi am incha allah loolu nag sëñ Cheikh Jëmm ngi koy woote di ci woo njabootu Cheikh Ibrahima Fall gépp ni ko jëruñ ji waxee léegi Serigne Fallou Fall nga xam ne mooy jëruñam woote boo gis moo indi leen ndab yi kon koo xam ne mënoo ñàkk fas yéene la ñëw wuy si indi sa ndab te xam ne lu waay indi sëñ defal la ko ndax finde ji mooy yéen yéen a ñëw di jël si kàddu yi bokkoo tasaare adduna bépp man cee jariñu wursi si wuleenu khais da ngeen a bëgg a jariñu bëgg mi loola waral ngeen indi seen caméra yi boole ko seen radio bi jël wax ji ak image yi ngir tassar ko ci aduna bi bi ngeen ñëwee léegi gis ngeen xéwal yi fi tàmbalee ñëw te lolu bu ndigal li amul won ñoñ bëgg nañ ko jox way amuñu kon ko jox way ñak wi ñu ñakal Cheikh Ibra Fall nag te Cheikh Ibra Fall waxoon ni amna lo xamanteni bi bakkar yo xamni jang du ko jindi julli du ko dindi lan mo koy dindi ñak ñak dina indi wërsëg ñak dina dindi bakkar ñàq dina yo yokk aw fan rawatina nag addiye kon murit yaa ngi nii di liggéey di ñàq foofu seen addiye di indi di ko jox Cheikh Ibrahima Fall.